dalee na jàmm gannaaw conseil des ministres bi nga xamante ne am na alxames ji weesu kii di le président de la république jël na dogal jox impôt et domaine ki nga xam ne ni moo di moom Mamadou Guèye kan mooy Mamadou Guèye moom la ñuy ñëw ak yéen Mamadou Guèye mi ngi gane àdduna ci 1978 euh, ca fële ca Géoul nekk ca fële ca Kébémer maanaam diggante Kébémer ak Louga foofu nag fa la gane àdduna moom mi ngi dugg ci jàng ba am li nga xamante ne moo di certificat ma ci 1990 fële ca Langsar nga xamante ne moo nekkoon eh, ay jamono école six bu Pikine naka noonu ca la suivre ay études am ba ni mu amee lii di BFM ci mille cent 1994 ci fële ca CM Serigne Cheikh Anta Mbacké ex Canada moom la tuddewoon ay jamono kanada bu Pikine mu ngi am baccalauréat ci mille cent 1997 ci lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye naka noonu licence ci mille mille ci fële ci université Gaston Berger bu Saint-Louis moom naka noonu gannaaw loolu nga xamante ni moo di licence ba mu ci amee wéyal na am lii di maîtrise ci wàllum sociologie ci mille 2002 ci fële ci université bu Paris université bu Paris 8 ca fële ca France ci cinq encore mu nekk major ci promo promotion ci liste boo xam te ni 32 élèves ñoo ca nekkoon inspecteur ci secteur impôt et domaine fële ci école nationale d'administration di ENA ay jamono ñu tuddewoon ko li nga xam ni moo di ENAM moom eh, li jëm ci li nga xam te ni moo di formation professionnelle am mi ngi nekkoon 2006 ci service d'assiette à plateau Dakar Plateau naka noonu 2007 mu nekkoon euh, kun affecté woon ci service des grandes entreprises naka noonu 2010 2007 ba 2020 mu nekkoon stage ci fële ca Corée naka noonu stage ci fële ca France gannaaw ba tamit mission ci Afrique du Sud mission ba tey ca Canada ca si ca Seychelles ca fële ca Suisse naka noonu ca fële ca Rwanda ak ca Angleterre mu nekkoon représentant euh, direction des impôts et domaines ci certaines yenn structures yi ci forum yu bëree bëri yu nga xam ne daan na dajale ay nit muy ay forum administration fiscale naka noonu mu nekkoon tamit chef ci centre des fiscaux de Grand Dakar naka noonu ba tey jii moom moom ma Gueye mi ngi nekkoon tamit adjoint ci direction euh, ci directeur euh, ci bi jiite wàllum euh, législation ci coopération international gannaaw ba nag ci depuis novembre deux mille 2020 nag moom ci la nekk chef du centre des moyennes entreprises ca fële ca DGID nekk nag gannaaw ba ku yëngutu ci wàllum football wala ko daan jàppale li nga xamante ni moo di wàllum football ba mujjee tabb ko li nga xamante ni moo di président AS Pikine président AS Pikine googu waral mu gën a tamit am kàddu ndaxte ku wax football wax li nga xamante ni moo di kàddu rawatina association sportive gannaaw ba nag ci élection yi weesu ci mille 2022 gi ci la nekk li nga xamante ne moo di maire bu commune bu Djiddah Thiaroye Kaw maire boobu moom la occupé ba ci jamono ji ci alxames ji weesu nag gannaaw li nga xamante ni moom la président de la république defoon ngir déplacé wu ba fële ca Thiès ngir amal li nga xamante ni moo di conseil des ministres décentralisé bu nga xamante ni daa jóge ci ndakaaru war ko tuxal ca fële ca ceeskaay di fam nekk booba ba léegi ba ci jamono ji foofa nag ci conseil des ministres ca la jële décision tabb ki nga xamante ni moo di Mamadou Guèye ngir mu dem jiite li nga xamante ni moo di impôt et impo impôt di barab ba nga xamante ni kii di Ousmane Sonko njiital Pastef xam na ko bu baax a baax gannaaw ba nag moom ma nga fa war a dem ngir remplacer remplacer fa ki nga xamante ni moo di du Diaw ñu gën koo xam ci turu Mame Boye Diaw mi nga xamante ni moo nekkoon fële ci impo et impo impôt et domaine di barab ba nga xamante ni ñu bëri bëri boo ko tuddee rek seen xel dem ci njiital Pastef foofe fële kii di maire bu Djiddah Thiaroye Kaw naka noonu nekk président bu AS Pikine war a wéel nekk jàmbaar loolu nga xamante ne nekkoon na major ci yenn ci promotion mu di promotion inam bi nga xamante ne ca la bokkan nga xamante ni 32 élèves rek ñoo ca nekkoon mu nekkoon ca major kon nekk na koo xamante ne dina ci am yaakaar naka noonu koo xamante ne ma nga génne ca Gaston Berger naka noonu ca lycée Seydina Limamou Laye doy na képp ci ñu xam ni kon impôt et am na gan ci li njortees di nag moo di ni ngir mu jaarle ko ci yoon wa nga xamante ni yoon woowu moo di yoon wa gën ñu koy ñaanal nag ci postam boobu yàlla na ko jig jaa jëf